Chronique People. salaamaaleykum waa naa la salaamaaleykum Alla nuyu naa la nag waaye tamit sama nuyu bii dama koy berale ki nga xamante ne nii daal mooy Seydina Omar ñu ñëw nag ci ki nga xamante ne nii moom mooy Bouba digganteem nag ak ki nga xam ni mooy maître Gims daal ñoom ñaar neexoowuñu dara ndax daal ki nga xamante ne mooy maître Gims dafa jàpp ni am na ñoo xamante ne nii daal dañuy dem jënd li nga xamante ne mooy stream bi di ci def seeni son ngir gën a mën a yéegal seeni vente waaye daal limul woon benn tur ñoom ba ñu ñëwee daal dinañ def benn documentaire ci mbir moobu noonu waaye jot nañ fa nag lim ay tur ba buubaa nag gis ci boppam ba tax fu mu gis maître Gims rek toroxal ko baa mu wax ko ñaaw téef maître Gims nag def na benn vidéo boo xamante ne nii dafa toog ci benn jat privé nag moom it di laaj ay fansam ndax ramadan bi daal yéen a ngi koy dund ak jàmm waaye daal kii di buubaa dafa dem ci commentaire yi daal ne ko ndax boole bi ngay boole ndax mu ngi continuer wala daal ñu jàll nag ci kii di Tupac moom nag internautes yi ak youtubeurs yi daal Moi, mooy ni Tupac déwul ben yoon bu ñu ci 1996 defon nañ ben fusillade Nous xamantene ne ni dal dañ ko tiire won ay bal yu bari waye dal ñum gëmuñu ba tay ni dal ki dafa génn ndax ay ci dañuy ni ci atum 2017 ak 2019 Dal. def apparition te ñoom li ñu gëm nag mooy jamono ji Tupac mu ngi ca prison ba looloo tax daal ñoom gisuñu ko mu nga ñu nëbb nag ca benn établissement pénitentiaire bi nga xam ne nii Los Angeles la nekk te gis nañu it wéy yi nga xamante ne nii nag moom génnee na ko ci at yi ñu génn gis nañ ni kii di tuppaak nag identité yi ñu gis nag muy jëmm ji ak couleuru karawam ak li nga xamante ne nii ñoom moom lañ ko doon xàmmewee lépp mu ngeeg moom moo tax daal mënuñu gëm benn yoon ne Tupac génn àddina jeexale Seye Hustler moom nag dafa génn àddina ci semaine yi ñu génn waaye ki nga xamante ne ni daal mooy DJ Khalil moom nag dafa ni dina jël prise en charge nag ci ay doomam te it dina jéem a def lu mu mën ngir xale yi am avenir bu assuré te nag bu nu fàttalikoo rappeur bi nga xam ne mooy Nip Seye Hustler moom nag ci buntu magasin wom bi nga xamante ne nii fa doon jaay ay yére fële ca Los Angeles moom fa lañ ko fekk nag daal di koy faat ci ginnaawam mu bàyyi nag ñaari doom yi nga xamante ne nii ay